góor ñi ak jigéen ñi. mag ñi ak ndaw ñi. mag ñi ak ndaw ñi. ñoo ngi sant yàlla mi nu bind. ñoo ngi sant yàlla mi ñu bind. te digal na ñu jaamu ko. te digal ñu ñu jaamu ko. te jaamu gi ñu jóge bokk ci jaamu yi. te jaamu gi ñu jógee te bokk ci jaamu yi. te mu xéewale dugg ci. te mu ñu tàmbali ko ba jeexal ko tey jii. te mu xéewaloo ñu ko ñu ñu tàmbali ko ba jeexal ko tey jii. di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di julli mi nga xam ne bu dul woon ak moom. moom mi nga xam ne bu doonoon ak moom. duñ doon ay nit. moom mi nga xam ne bu doonoon ak moom duñ doon ay nit. lii ñu nekkit duñ ci nekk. lii ñu nekkit duñ ci nekk. Eh, di noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. noo leen di nuyu yéen ñëpp. ci turu ak turu ak ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha. ci turu ak ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha. di leen ndokkeel ci bis bii. di leen ndokkeel ci bis bii. ci turam ak ndigalam. ci turam ak ndigalam. di leen baalu àq ci bis bii. di leen baalu àq ci bis bii. ci turam ak ndigalam. ci turam ak ci ndigalam. képp ku ñu ci ameel àq baal nañ la ko. képp ku ñu ci ameel àq ci bis bii baal nañ la ko. te jëmmi yàlla rek ji moo tax. te jëmmi yàlla ji rek tax. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. mu ngi leen di soññi. mu leen di soññi. gannaaw ca nekkee. gannaaw ba mu ca nekkee. soññi ci mboolem ñi ko jege. soññi ci mboolem ñi ko jege. ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla. ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla. te xam ne yàlla kat bi mu fi indi. te xam yàlla kat bi mu fi indi. dañoo indi ngir ñu jaamu ko. dañoo indi ngir ñu jaamu ko. waaye sàkkalu ko waxtu. waaye sàkkalu ko waxtu. néewul jaamu leen jaamu leen mu benn bis bàyyi. neewul ne jaamu leen ma benn bis bàyyi. waxut ne weer bàyyi. waxut ne weer bàyyi. waxut ba at bàyyi. waxut ne at bàyyi. waaye dafa wax ne feeg noo ngi dund. waaye suñ borom dafa wax ne feeg noo ngi dund. lim ñu digal. lim ñu digal. nañ ko def. nañ ko def. lim ñu tere ñu bàyyi ko. lépp lu ñu tere ñu bàyyi ko. kon loolu sëriñ bi nee na. kon loolu sëriñ bi nee na. nañ ci góorgóorlu bu baax. nañ ci góorgóorlu bu baax. ndax yàlla kat. ndax yàlla kat. buur la boo xam ne. buur la xam ne. lu mu diggee. lu mu diggee. kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara. te kenn ku nekk ci nun te kenn ku nekk ci ñun. war na koo xam ci boppam. war na koo xam ci boppam. lii nga xam ne jóge nañ ci nag. ñi nga xam ne lii nga xam ne jóge nañ ci nag. muy woor weeru koor. muy woor weeru koor. muy ñeenteelu ponk lislaam. muy ñeenteelu ponk lislaam. moom rek moo ci jaamu goo xam ne. moom rek moo ci jaamu goo xam ne. yàlla nee na moo ko moomal boppam. yàlla nee moom weeru koor moo ko moomal boppam. jaamu yi ci des yëpp. jaamu yi ci des yëpp. mën naa wax mbindeef mu fayee ko. mën naa wax ne mbindeef mu fayee ko. waaye weeru koor moo koy fayal boppam. waaye weeru koor moom yàlla moo koy fayal boppam. weer a ngi bis a ngi ci boo xam ne itam. bis a ngi ci boo xam ne itam. di guddi goo xam ne. guddi goo xam ne. wecc na junniy weer. wecc na junniy weer. loolu moo di. loolu moo di. ku yàlla dimbali ba nga fekkee ko. ku yàlla dimbali ba nga fekkee ko. loo ca def ci jaamu yàlla. loo ca def ca jaamu yàlla. yàlla dana ko def junniy yoon. yàlla dana ko def junniy yoon. kon jaamu gii nu jógee. kon jaamu gii ñu jógee. jaamu yëpp rëy. jàmm yëpp rëy. waaye bii benn ëpp ko ci. waaye bii benn ëpp ko ci solo. mooy jaam jaamu gi nga xam ne. mooy jaamu gi nga xam ne. bu agsee. bu yegsee. yàlla yërmande rek lay feese. yàlla yërmande rek lay feeñal ci mbindeef yi. moom la lay feese. moom rek lay feese. moom la yéene ñëpp. moom la yéene ñëpp. ñun nag. nun nag. yàlla dañoo bind. yàlla dañoo bind. jox num xel. jox num xel. xel mu ràññee. xel mu ràññee. xam li nu jub. xam leen lu jub. li nu jig. xam lu ñu jig. ak li nu jigul. ak lu ñu jigul. xam li ñuy yóbbee jàmm. xam lu ñu yóbbee jàmm. ak xam li ñuy yóbbee ay. ak xam lu ñu yóbbee ay. yàlla xotti ñaari yoon yoo xam ne. ñaar yàlla xotti ñaari yoon yoo xam ne. bii. bii. yoonu nu la. yoonu jàmm la. bii. bii. yoonu ay la. yoonu ay la. te benn bu ci nekk. te benn bu ci nekk. ràññelee nañu ko. ràññelee nañu ko. ràññelee nañu ko. ko. te buñ ci tegu. te ci tegu. te wàccuñ ci. te ci. ca dëkk ba lañ jëm. ca dëkk ba lañ jëm. ci aw yoonu jàmm. ku jàmm. ci dëkkub jàmm ngay jëm. ca dëkkub jàmm ngay jëm. aw yoonu ay. ku ci aw ay. ci dëkku ay nga jëm. ca ay woo nga nag yàlla wàccee na nañu. nañu góorgóorlu te xam ne. góor góorgóorlu te xam ne. yoon yoon yoon wi ñu bëgg bu buñ ca tegoo. yoon wi ñu bëgg buñ ca tegoo. buñ ko wàccee lu mu tuuti tuuti. buñ ko wàccee lu mu tuuti tuuti. luñ jege jege dëkk ba. luñ jege jege dëkk ba. duñ fa àgg. duñ yegg ca dëkk ba. te dund koo gis. te dund goo gis. ay bis la. ay bis la. ak i weer. ak i weer. ak i at. ak i at. loo doon doon gone. loo doon doon gone. bis boo dund. bis boo dund. wàññiku na ci sëg dund. wàññeeku na ci sëg dund. woo dund. weer woo dund. na ci sëg dund. wàññeeku na ci at moo dund. at moo dund. wàññiku na ci sëg dund. wàññeeku na ci dund. te fa nga jëm. te fa nga jëm. mooy dund nga jeex rek. mooy fa dund nga jeex rek. loo mënta moytu nag. loo mën mënta moytu nag. jàkkaarloo ak moom rek. jàkkaarloo ak moom. kon nag sëriñ bi nee na. kon nag sëriñ bi nee na. góor góorgóorlu. nañ góorgóorlu. ci jaamu yàlla. ci jaamu yàlla. ragal yàlla. ragal yàlla. topp yàlla. topp yàlla. ci bi muy neex. te bi muy neex. ak bi muy jot. ak ba muy jot. ndax nit kat. ndax nit kat. dana àgg foo xam ne fii. dana yegg foo xam ne fii. du dee du dund. du dee du dund. bu ci àggee. bu fa yeggee. lu mu defu toon lu mu defutoon. dootu ko def. dootu ko def. lu mu amutoon. lu mu amutoon. dootu ko am. dootu ko am. te xamut kañ lay doon. te xamut kañ lay doon. mën naa doon tey. mën naa doon tey. mën naa doon suba. mën naa doon suba. kon nag li wóor moo di. kon nag li wóor moo di. nañ sax ci jaamu yàlla. nag sax ci jaamu yàlla. sax ci ragal yàlla. sax ci ragal yàlla. sopp sax ci topp yàlla. sax ci topp yàlla. lii nga xam ne dañ cee jógee. lii nga xam ne dañ cee jógee. muy weeru koor. muy weeru koor. dañ ko def soññee rek dañ koy def soññee rek luñ ci tàmm ci ak jaamu yàlla lépp luñ ci tàmm ci ak jaamu yàlla buñ ci tàyyi mukk nañ ci wéy ñu ci tàyyi mukk nañ ci wéy te xam ne kat te xam ne kat seytaane seytaane ak bakkan ak bakkan bis ni ki tey bis ni ki tey ñu nu wër mu ngi ñu wër ñoo ngi ci suñu biir mu ngi suñ biir te buñ moytuwut te buñ moytuwut luñ mas baax baaxle lépp luñ mas a baaxle danañ ko yàq danañ ko yàq kon nag nañ góorgóorlu bu baax kon nag nañ góorgóorlu bu baax farlu bu baax farlu bu baax tey sellal jaamu yàlla gi tey sellal jaamu yàlla gi di ko def ni ko yàlla diglee di ko def ni ko yàlla diglee bisub tey itam bisub tey itam ñuy fàtte li nga xam ne ñuy fàtte li nga xam ne bu ñu fàtte li nga xam ne. bu ñu fàtte li nga xam ne. moog julli gi ñooyam. moog julli gi ñooyam. mooy joxe muurum koor. mooy joxe muurum koor. lu ci nekk. lu ci ci nekk. lu ci nekk. sunna su fedd liku la. sunna su fedd liku la. sunna su fedd liku nag boo ko doon wax da nga day mel ne. su boo ko doon wax ne day bu doon farata do bu fekkoon ne farata ñett la. mu ne bu fekkoon farata ñett la. ñaar yi su fedd ñaar yi sunna kon nag bu koy bàyyi xel bu baax. kon nag nañ koy bàyyi xel bu baax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne. bu nu wooree ba weer wi jeex. bu ñu wooree ba woor wi jeex. def ko na ko yàlla diglee. def ko na ko yàlla diglee. sellal ko ba rafet te rafetal ko. sellal ko te rafetal ko. ba defee ne noo ci nekk. ba defee ne noo ci nekk. te génne wuñ muurum koor. te génne wuñ muurum koor. boobaa yàlla du nangu sunu koor. nee na boobaa yàlla du nangu koor ji rek. waaw ah, yàlla dafa wax yàlla dafa wax yonent bi ci xadis ne ko. yàlla dafa wax yonent bi ci xadis ne ko. Ah, koor koor bi nga xam ne suma jaam bi da koo woor bi nga xam ne sama jaam bi da koo woor bu kori jotee bu kori jotee dama koy aj ca kaw dama koy aj koor ga ca kaw du ma ko jël du ko nangu du ma jël koor ga du ma nangu koor ga feeg génnewul muurum koor feeg jaam booba génnewul muuram koor kon nag nañ koy bàyyi xel bu baax kon nag nañuy bàyyi xel ci muuram koor bi bu baax ku ko defagutoon képp koo xam ne génne goo woon muuram koor wéy na way na waaye wàccu la waaye wàccu la kenn bu nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun ka ngay dundal te ña ngay dundal doon ab liir lay it doonte ab liir bu juddu tay la war nga ko koo génnee war nga koo génneel ak muuram koor kon buñ yem ci julli rek kon buñ yem ci julli rek buñ yem ci jàngal xuraan rek. bu ñu yem ci jàngal xuraan rek. bu ñu yem ci wird rek. bu ñu yem ci wird rek. lépp lu aju ci jaamu yàlla yi. lépp lu aju ci jaamu yàlla. luñ ci war a def. lépp luñ ci war a def. nañ koy yemale. nañ koy yemale. def ci suñ kéemtalaayal kattan. def ci suñ kéemtalaay kattan. loolu mooy tax nu mucc. loolu mooy tax ñu mucc. nag noo ngi nuyu ñëpp. noo ngi dellu di nuyuwaat ñëpp. ci turu sëñ bi ak ndigalam. ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ndigalam. di ndokkeel ñëpp. di ndokkeel ñëpp. ñi fi dëkkul. ñu fi dëkkul. ak ñi fi dëkk. ak ñi fi dëkk. góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ak ndaw ñi. góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi. di leen ndokkeel ci bis bii. di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di ñaan yàlla mi nga xam ne. di ñaan yàlla mi nga xam ne. moo nu xeewale. moo nu xeewale. ñu fekkee ko. ñu fekkee ko. woor ko. woor ko. ba bis bi ñëw. ba bis bi ñëw. ñu woore ko ci barab bi ñu ware ko ci barab bi barab bu sell bu tedd bii. barab bu sell bi bu tedd bii. yàlla na yàlla nangul suñuy koor. yàlla loo xam ne. def nañ ko ci. def nañ ko ci. muy rëcc rëcc. muy rëcc rëcc. yal na ko yàlla nëbbal. yal na ko yàlla nëbbal. yàlla jéggal nu ko. yàlla jéggal nu. jéggal nu ko. jéggal ñu ko. sàmmal nu suñu diine. sàmmal ñu suñu diine. musal ñu ci seytaane. musal ñu ci seytaane. suñu bakkan. musal ñu ci suñu bakkan. musal ñu ci am ndok. musal ñu ci am ndok. ba lépp loo xam ne. ba lépp loo xam ne. saa borom digle na ko. saa borom digle na ko. ñu mën koo defee nam ko bëggee. ñu mën koo defee nam ko bëggee. lépp mu nangul ñu ko. lépp mu nangul ñu ko. ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne. ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne. dara tëwu ko. dara taw ko. ci barke bërëb bii. ci barke bërëb bii. ak barke maam jaara mi fi tëdd. ak barke soxna si jaara mi fi tëdd. yàlla may nu wér. yàlla na nu yàlla may wér. yàlla may nu wërsëg. yàlla nu yàlla may wërsëg. yàlla may nu jàmm. yàlla may ñu jàmm. yàlla yokk xéewal yi. yàlla yokk xéewal yi. yàlla faj aajo yi. yàlla faj aajo yi. yàlla mottali yéene yi. yàlla mottali yéene yi. yàlla sàmmal ñu suñu diine. yàlla sàmmal ñu suñu diine. sàmm ñu suñu taalibe. sàmmal ñu suñu mbokk gi. sàmmal ñu it gi. sàmm ngeen njaboot gi. sàmm ngeen njaboot gi. ndax lu ci solo la. ndax lu ci solo la. jamono ji ñu nekk. weer wi jamono ji ñu nekk. jamono ji ñu nekk. ku ciy gone. ku ciy gone. buñ la ne mujjug jamono la. bu la ne mujjug jamono la. da naan day bëgg a dee rek moo tax mu di ko wax. da nga naan day bëgg a faatu rek moo tax ñu koy wax. waaye képp ko am gis-gis. waaye képp ku am gis-gis. baa nga am xam-xam. baa nga am xam-xam. baa nga daan déglu mag. baa nga daan déglu mag. mboolem yoo xam ne. mboolem yoo xam ne. ay tegtal la. wane. yu ko daan wane. ñu ci tek suñu bëtt ñu ci tek suñu bëtt bis bu nekk. bis bu nekk. bala bi ñu joggé bala bi ñu joggé té ñu ne jeexagu fi. kay na jeexagu fi. té ñu ne jeexagu fi. té ñu ne jeexagut fi. té ñu ne jeex té ñu ne jeexagu fi. té ñu ne jeexagut fi. lool rek ci mujj. kon lool mo ci mujj. lool mo ci mujj. te yeneen dana ñëw. te yeneen dana ñëw. kon nak kon nak jaamu yalla jaamu yalla top yalla top yalla ragal yalla ragal yalla té bi muy jot. té ba muy jot. war na mak war na mag. war mag war na ndaw. war na ndaw. kon nag nan góorgóorlu. kon nag nañ góorgóorlu. góor ci. nekk ci. nekk loo ci njaboot gi. nekk loo ci njaboot gi. nekk ci ak ñoom. nekk ci ak ñoom. ndax nit kët ndax nit kat. lépp loo xam da ngaa bëgg mu ca lépp loo xam ne da ngaa bëgg mu nekk ca. di ko ko wax guddeeg bëccëg. di nga di ko wax guddeeg bëccëg. te waxtu bu gisee waxtu bu la xoolee doo ca nekk. waxtu bu la xoolee doo ca nekk. bu la nee nekk na ci day nëbbu di ko def. bu la nee nekk na ci day nëbbu da na ko def. kon nii ñu jaamoo yàlla. nañ ko woon njaboot gi. nañ ko woon njaboot gi. xiir leen ci. xiir ci njaboot gi. di leen ci woo. di leen ci woo. te xam ne. te xam ne. Euh, jaamu yàlla ku koy def. jaamu yàlla ku koy def. doo jot. doo am jot. te ku amut jot. ku amut jot. te te ñàkk jot gi yàlla teg la ko. te ñàkk jot gi yàlla teg la ko. mooy yàlla. doo mooy yàlla. kon nag nañ góorgóorlu bu baax. kon nañ góorgóorlu bu baax. bu am jot. buñ am jot. buñ may njaboot jot. buñ may njaboot gi jot. ñun ñëpp. ñun ñëpp. nañ ànd. nañ ànd. maase. maase. ci ci yàlla. dellu ci yàlla. topp yàlla. topp yàlla. ragal yàlla. ragal yàlla. jaamu yàlla. jaamu yàlla. te xam ne kat. te xam ne kat. kenn ku ci kenn ku nekk ci nun kenn ku nekk ci ñun. boo ko laajee. boo ko laajee. mën na laa wax téeméeri mbokkam yoo xam ne. mën na laa wax téeméeri mbokkam yoo xam ne. yum xamoon la. yum xamoon la. yum jaxasooloon la. yum jaxasooloon la. waaye waajuram lañ. waaye waajuram ngërëm. te suul na leen ñu ngi ci biir suuf suul te da nga leen fekki. te da leen fekki. te boo leen fekkee it. te boo leen fekkee nga fay fekk ak sa jëf. yàlla rek nga fay fekk. ak sa jëf ak sa jëf. te dara wéyeegut. te dara wéyeegut yi. kon nañ góorgóorlu bu baax. kon nañ góorgóorlu bu baax. yal na yàlla dimbali. yal na nu yàlla dimbali. xiir nu ci boppam. xiir nu ci boppam. yal na yàlla musal. yal na nu yàlla musal. seytaane ak bakkan. seytaane ak bakkal. te suñ lépp musal ci lépp. te sunu lépp. te sunu lépp. di yàlla. di yàlla. jóge ci yàlla. jóge ci yàlla. dellu ci yàlla. dellu ci yàlla. noo ngi sant ñëpp. noo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñépp ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. àndoon nañu ñu ci liggéey bii. ci liggéey bii. moo xam daayira bi nga xam ne dañu daan indi ndogu la. mooy xam daayira bi nga xam ne dañu daan indi ndogu la. ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi fi daan indi ay ay ci jumaa ji. ak mboolem ñi nga xam ne dañu daan indi ay xéewal ci jumaa ji. di sant waa kër sëñ Modou Dieng. di sant it Baye Fall yi ci ngiral waa kër sëñ Modou Dieng yi. di sant it sëñ Massamba Diop. di sant it sëñ Massamba Diop. ndax yonent bi dafa wax dafa yàlla dafa wax yonent bi ci xaddis ne ko. ndax yàlla dafa wax yonent bi ci xaddis ne ko. képp koo xam ni koor ñëw na. képp koo xam ne koor ñëw na. nga nga yëkkati. nga yëkkati. lu lu jullit mën a doge. lu jullit mën a doge. nga jox ko ko mu doge. nga jox ko ko mu doge. yool ba mu am ci kooram. yool ba jullit ba am ci koor ga. da nga ko am da da nga ko am. yow nga joxe ñam boobu da nga am yool bu toll noonu. booleeg sa koor. booleeg sa koor yow moom. kon nag ku ko dëkkee. kon nag ku dëkkee loola. weer bi yëpp. weer wi yëpp. mat naa ñee. mën naa ñee. mën naa sant. mën naa sant. mën naa gërëm. mën naa gërëm. noo ngi sant itam noo ngi sant itam waa kër Baye Abdou Diop ñi nga xam ne waa kër Baye Abdou Diop bi nga xam ne ci njiital sëñ Taala ci njiital sëñ Taala Diop ak liggéeyub Jili Diop ak liggéeyub Jili Diop ak Cheikhouna ak Cheikhouna naa mboolem lu seen seen baay daan def mboolem lu seen waajuru góor daan def ci dëkk bii ci dëkk bii ci ndigalul sëñ bi ci ndigalul sëñ bi desaluñ ca dara nee ñoom desaluñ ca dara kon noo ngi sant ñëpp noo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp gërëm ñëpp ma daan wax rek ni nit du mat nit du mat nitay fett nit day fàtte. waaye yàlla du fàtte. waaye yàlla moom du fàtte. te jëf ji ñu fi jëf. te jëf jëf jëf ji ñu fi jëf. genn jëmu taxut ñu def ko. genn jëmu taxut ñu def ko. ak ku ko mën di jëf. ku ko mën di jëf. lu mu rëy rëy. lu mu rëy rëy. ak lu mu tuuti tuuti. ak lu mu tuuti tuuti. yàlla ak weer wee tax nga def. yàlla ak weer yi képp moo tax nga def ko. bu ma ko xamut. ku mu ko xamul. bu ma ko xamul man. bu ko xamul moom. yëguma ko. yëgu ko. mbaa fàtte naa ko. wala fàtte na ko. yàlla moom jàpp na ko. yàlla moom jàpp na jëf ju baax bi nga def yow. te yaa ngi ñi ma tudd yow la yemale. te nee na Rasoul nee na yaagam la yemale. kon maa ngi sant ñëpp. nee na mu ngi dellu di sant waa ñëpp. ci ndigalu sëriñ bi ak turam. ci ndigalu sëriñ bi ak turam. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. yàlla yàggal ko fi. yàlla yàggal bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha. ndax yoon bi muy wane. ndax yoon bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha di wane. moom la. ba maamam daan wane. moom la maamam daan wane. moom la baayam daan wane. moom la wane. ay magam daan wane. moom la ay magam yàlla nattoo ko. yàlla nattoo ko. mu ñëw ci jamono ji ma wax léegi. mu ñëw ci jamono ji mu wax léegi. te mën a ànd ak moom. te mën a ànd moom. lañ daan déggal ay taalibe. lañ daan déggal ay taalibe. ñu di ko dégg di ko jëfe. ñu di ko dégg di ko jëfe. mu di ñu ko digtal. bu ñu bu ñu ko digtal. li àdduna yàqu yàqu. li àdduna yàqu yàqu. ñu di ko dégg di ko jëfee. ñu di ko dégg di ko jëfee. kon nag. kon nag. yal na ko fi yàlla yàggal. yal na ko fi yàlla yàggal. yàggal fi mboolem jullit ñi. yàggal fi mboolem jullit ñi. ñun ñëpp yàlla nangu suñu koor. yal na yàlla nangu suñu koor. nangu suñuy jaamu. nangu suñu jaamu. jéggal ñu suñuy bakkaar. jéggal ñu suñuy bakkaar. faj suñuy aajo. faj suñuy aajo. sàmmal ñu suñu diine. sàmmal ñu suñu diine. sàmmal ñu mbokk gi. sàmmal ñu mbokk gi. sàmmal ñu njaboot gi. sàmmal ñu njaboot gi. yàlla rek moo dul fàtte yalla rek modut faté li nak faté wul ko serigne bi néna li bëgg wax dé faté wul ko ko fat bamu ëpp rek da ko fat ba ëpp modi modi modi sunu imam cheikh bousso sunu imam bi nga xamné mo ñu jité muy cheikh bousso mo ngi sant yalla baax ci fimu tollu néna ñu ngi sant suñu borom bu baax fimu tollu ndax pass passam nee na pas-pasam. ak yéeneem. ak yéeneem. moo tax ba li muy jéem ci julli gi mu di ko def. moo pas-pasam ak yéeneem moo tax li muy jéem ci julli gi mu di ko def. mu ngi ñaan yàlla ci barke bis bii. nee na mu ngi ñaan yàlla ci barke bis bii. yàlla delloo ko ci sagoom na meloon. yàlla delloo imaam ca sagoom nam meloon. delloo si ko ci suñu delloo si ko ci suñu biir. ñu ànd di jëfe jëfe ndigalul yàlla. ñu ànd di jëfe ndigalul yàlla lii. ak ndigalu sëriñ bi. ak ndigalu sëriñ bi. waroon si nga xam ne moo ko wutu woon nee na ki nga xam ne moo ko wut woon ci fulku bi di Abdou Dramé. ñoo ngi sant yàlla bu baax. nee na ñu ngi yàlla bu baax. ndax góorgóorlu na ci bu baax. te góorgóorlu na ci fulku bi bu baax. te ñun ñëpp yam eh, fi taxaw ñëpp. te ñun ñëpp ñu fi taxaw. nooyam. nooyam. kenn ku ne da ngay dem. kenn ku nekk da dem. la ngay def nit wutu la ca. da def nit wuutu la ca. am na ñoo xam ne sax buñ demee. am na ñoo xam ne buñ demee. lañuy def. la ñuy def. kenn du leen ca mën a wuutu. kenn du leen ca mën a wuutu. naa moom mën na ko cee wuutoandi. waaye nag moom Abdou Dramé mën na ko cee wuutoandi. ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ñoo sant yàlla. di ñaan lépp nag. di ñaan lépp nag. njàngum alxuraan mi. njàngum naafila yi. fulku bi fulku bi. ñam yi ñam yi. xéewal yi lépp yàlla na ko yàlla nangoo lépp yàlla na ko yàlla nangu. lu ci waay def rek. lépp lu ci waay def rek. yàlla nga jot loo xam ne. yàlla nga jot loo xam ne. boo ko jotee da nga xeeb la nga defoon. boo ko jotee da nga xeeb la nga defoon. ci barke maam Jaara.